waaw sujet bi nag mi concerne sur nombre de divorce xam naa ni moo moo koy gën a yaatal Soxna Dior yow lance nga jógee n'est-ce pas kon naa la bàyyi nga développer sujet bi salaamaaleykum mbokk soxna yi maa leen di nuyu di leen ku ci nekk ci turam ak santam euh, ci thème bi ñu commencé ku ci introduction bi dans le monde actuel où nous vivons nous avons remarqué une augmentation du taux de divorce qui de partant d'une étude réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ANDS, il est recensé 186 626 divorces par an, soit 345 divorces par jour. Par jour, même avant même la survenue de la cinquième année. Ce si grand nombre élevé, alors que le mariage est une union légitime, une union religieuse sacrée de deux personnes dans les conditions de la religion prévues par la religion. derrière tout problème se trouve des causes maanaam ci ginnaaw problème bu nekk am na ay causes ci defee bu ñu defee suñu seetlu seetlu nañu Sénégal la plupart des femmes dañuy demande divorce parce que euh, par la polygamie parce que jigéen dafa fiir fiiraange googu da koy jaral mu dem ci sëriñ walla sax mu ànd ak ay goroom wala ay njëkkeem di wu jëm ci teraanga goo xamante ni jëm amu ko loolu waral na kooku ci ndax jigéen ku ne xam na ni dafa gàtt xel ak impuissance daf koy jaral mu demande divorce wala mu egg fu mu war te egg récemment on a constaté Dakar une jeune femme qui a été koo xamante ni wu jëm daf ko soode ndax rek firange mais aussi on a aussi constaté que mariage enrangé yi tamit am na ci par de responsabilité parce que parents yi dañuy jël ñaar ñoo xamante ni mësuñu gisante wala sa xamante wuñu ñu boole leen ndax lan alal wala problème de caste parce que Sénégal problème de caste moo fi ëpp euh, problème ci mariage yi parce que dañ naan kii géwél la géer la wala tëgg la dama ko may sama doom alors que si l'islam loolu amu fa jullit moom jullit rekk la aussi seetlu nañu que ni xale yu jigéen yi aussi la plupart dama ne ñëpp parce que loo gis am na exception l'exception fait la règle am na ci ñoo xamante ni dañoo matérialiste maanaam lu ñu gis bëgg ko duñu doylu te dañuy teg bët ba mu jaral leen ñu gis koo xamante ni mu ngeeg kat-kat mu ngeeg alal yu bari ñu dugg ci moom pour sëyal ko alors que ni l'habit ne fait le moine yor 4x4 di sol costume taxut a yor alal alal ju bëri mën a dëkkal da ko gën te la plupart ñu ngi Dakar di liggéey mais su weer bi deewee bu ñu ñibbee village ba ñuy dem sax xamoon nañ fa dëkkee donc sëy dafa nekk loo xamante ni dafa am importance bala nga ciy dugg il faut nga xam ki nga ko sékkal mooy kan parce que sëy du benn fan du ñaari fan aussi seetlu nañu euh, euh, que ni la plupart aussi des maris ñoom duñu amuñu temps pour seen soxna yi du ñu leen du ñu jël seen responsabilité c'est-à-dire que jigéen soo ko yoree ci kër war nga koo respecter dëkkoo ko dëkkal ko mais boo xëyee dem guddi di guddee wàcc di tux lu bon parfois sax ngay naan sàngara jàpp sa soxna dóor bi muy bëgg dee te boo demee kër ga ñu ñu la sëyal taaru jigéen mooy sëy boo sëyee muñ ba sonn mënatoo muñ nga demander divorce c'est c'est aussi une cause du surnombre de divorce au Sénégal seetlu nañ tamit que ni xale yu jigéen ñi ni ñuy sëyee doy na waar parce que am na ci ñoo xamante ni warumaaluñu seeni jëkkër joxuñu leen cër ci sax wuñu leen lekk nañu naan nañu seen yoon nekku ci ci napp 8 heures ba 18 heures añ sax toggatuñu ko loolu aussi am na si part de responsabilité mm-hmm. mais d'après étude bi ñu def yëpp on a su trouver quelques solution ou on a proposé solution parce que jigéen booy sëy war ngaa xam ni boroom kër sang la boroom kër dëkkee suturaal mm-hmm. te nit boo nekkee ak moom ci kër war nga ko jox cër ndax ka la jële ci kër indi la ci kër danga ko war a toppatoo mm-hmm. aussi nit ki booy sëy ak moom war nga kaa wormaal ndax ñu jëlee exemple ci soxna Jaariyatu Laay maam bu Buso ki nga xamante ni képp murit soxnay murit ci moom nga war a xool ba ku dul murit sax war nga xool ci moom ci waxi Serigne Gana gi for nañ si nii benn bés boroom këram daf ko woo di ko teeloo bant ngir defar mbaar bi muy defar mbaar gi yàlla dogal muy taw boroom këram am lu mu fàtte daal di génn soxna jaaro taxaw ci taw bi muy taw ci kawam ba sëbet bi boroom këram ñëwaatee seetlu ko ni soxna jaaro bu jëwul fi mu taxaw mënu ko moo soxna si lu tax duggoo ci biir bi muy taw mënu ko sëñ bi danga maa joxoon ndigal ma génn te joxoot ma ndigal ma dellu moo tax ma toog kon képp kuy murit war nga bàyyi xel loolu noonu ndax kat jamono ji fi mu toll nii ku ci sa boroom kër taxaw loo woon buy wit sax nga robb ko fa ni ko damay feebar waxuma laak nag taxaw ci taw ba muy sebet donc il est très très importante pour une femme mu respecter marraine prendre soin de lui mais aussi jigéen soxna du jàmm soxna ka la ko jox mënoon na ko dëkkal dëkkoo ko ndax ba muy xale ba demi màggee baayam a ko yor mais ba mu la ko joxee waroon nga kaa mën a toppatoo ca nam la ko joxee en grosso modo mën nañoo wax que ni Sénégal taux de divorce bi am nañ ci li muy rëy rëy soxna yi am nañ ci part de responsabilité mais aussi borom kër yi am nañ ci part de responsabilité waaye kenn du parents yi parce que nag boo yoree sa doom war kaa toppatoo mais taloo dara bu yaay xëyee liggéey bàyyi xëy liggéey donte sax parité wax nañ dëgg mais parité ba ci sëy a déedéet parce que jigéen ak góor ci islaam tolloo wuñ te duñu mës a tolloo mm-hmm. une femme doit être soumise et obéissante merci